maa ngi tudd Cheikh amadu Ndiaye maa ngi doon militant wu di aussi le coordonnateur de la plateforme SICAP solidaire maa ngi tàmbali nag samay kàddu euh, ni ma ko waxee woon sànq di delloo njukkal ak di remercier waa ASC Liberté 4 ci choix bi nga xamante ni porté nañ ko ci man pour ma nekk le parrain de cette manifestation des 72 heures de Liberté 4 parrainage bi nag euh, doon na loo xamante ni oyof na lool ci ñun ndax li ko waral mooy dañu ko sekk ak suñu jigéen muy madame Sall di Ndeye Fatou Ndeye Fatou Fall mu taxawuñu jàppale ñu bu baax ci organisation bi nga xamante def nañ ko muy jigéen bu am solo aussi parce que c'est une femme battante ci ne ménage aucun effort pour soutenir son mari et sa famille donc ñu war a féliciter li waral li waral taxawaay bi tey moo di ne ñun dañu doon doomu Sicap Liberté juddoo Sicap Liberté màggee Sicap Liberté am loo xamante nii ñun bi ñuy juddu Sicap Liberté moom lañ fi fekkoon Sicap Liberté di doon di boo xamante ni bokk na ci euh, doon commune boo xamante bokk na ci commune yi njëkk a dégager un urbanisme vraiment euh, attrayant boo xamante ni nekkoon na fierté wu Sénégal loolu si depuis les années cinquante alors ñu dund ci Sicap Liberté boobu ba léegi ñu gis ne la détérioration de notre cadre de vie maanaam suñu dëkkin suñu dëkkuwaay yi dafay jëm rek ci di gën a nasax di jëm rek ci di gën a nasax mu boole ceeg oisiveté maanaam Euh, population bi ak ndaw yi nekk di dundu précarité boo xamante ni dafa jéggi dayoo insécurité ñu ngi fi insalubrité ñu ngi fi donc loolu noonu ñëpp soo ko boolee mu doon ay facteurs yoo xamante ni nii ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy population Sicap Liberté dañ koy naqarlu alors ñu war ci mën a taxaw nag pour indi ci ay solution ñu am nag opportunité boo xamante ni dafa taxaw ci suñu kanam moo di ne le 23 janvier 2022 élection municipale dinañ ko organiser waat ci Sénégal élection municipale nag bu ñu ko waree organiser ci Sénégal ñuy dund lii ñuy dund ci biir commune bi war nañ ko saisir avec suñu ay loxo yëpp ndaxte dinañu permettre ñu mën a porter notre choix sur des profils yoo xamante ni nii soxla ak yittewu gox bi ak ñi dëkk ci gox bi dinañ ko mën a jaamu ba indi ci ay saafara loolu nag buñ ko waree def man dama taxaw man Cheikh Amadou Ndiaye dama taxaw doon euh, un acteur politique doon un acteur de développement aussi am seetlu am jàngat waaye li ma ci génne moo di ne il est temps que ñun ñu taxaw dëggal suñu bopp ndax li ñu yéene suñu biir commune ñu mun ko fi apporter loolu nag buñ ko buggee def dañuy ubbeeku dañuy ubbeeku ci population yëpp xam nañ ni fii ñu nekk di Liberté nangul nañ ñu ndaxte wane nañ ko ci njukkeel bi nga xamante ni jox nañu ko li ñu ci gën a dooleel aussi bu weesoo waa Liberté 4 ak waa moo di ne la plateforme SICAP solidaire bi nga xamante ni dama ci yëngu ñoom it toog nañu waxtaan saytu bane dinañ ma tabb pour ma jiiteel leen seen liste wala boog ma jiite leen ñu présenté ma comme candidat à la aux prochaines élections municipales alors loolu nag man li ma ci wax dëggal ko mu firndeel ko moo di ne man Sicap Liberté daf ma ñor sama engagement politique bëgg gu ma bëgg Sicap Liberté moo da doon da doon da doon li ko soos te li ñu bëgg namm def ko ci biir Sicap Liberté mooy ñu ànd ak population Sicap Liberté kenn ku si nekk indi li nga mën ak li nga xam ñun ñëpp ñu travailler ndoo ensemble am ubbeeku nag ci ñi fi nekk ñëpp pour que ñu mën a améliorer notre cadre de vie ñu mën a euh, travailler pour le bien-être des populations ndaxte je pense que ne y a que l'intérêt mooy li nga xamante ni moo am solo alors loolu mooy li nga xamante ni moo sabab sama engagement politique may wax rek ne devant toute l'assistance devant les populations de Liberté 4 ak ci kanamu population Sicap Liberté ci kanamu samay xarit samay mbokk ak samay camarades de parti ci ginnaaw Sicap solidaire mi nga xamante ni ñoom jël nañ seen choix porté ko ci man maa ngi déclarer solennellement que man Cheikh Amadou Ndiaye je serai candidat aux prochaines élections municipales du 23 janvier 2022 pour être maire de la commune de Sicap je vous remercie